la boo xam ne mu ëpp chiffre bi ñu doon xaar ndax nag ci ab ndaje bi ñu doon amal ak seen ay partenaires yu FMI ci weeru octobre nguur bi fi nekkoon dafa waxoon ne ci atum 2023 dinañu fexe ba wàññi déficit budgétaire ba ba 4,9 pour cent waaye nag ku moywul loole dina dem ba romb foofee ndax nag li ñu séentu mu di 5,5 pour cent boo ko xayma ci koppar tollu kon ci junni milliards yu toftal ñeent fukk ak juróom ci france CFA loolu nag jaaxal lool kilifa yu bees yi ba tax kon ñu ne dañuy fexe ba wàññi ndànk-ndànk rek déficit ba seen xel ma ci jëm ci wàllu comme nag jàpp ne war nañu ko mën a jaarale ci élargissement assiette fiscale. C'est la réduction des dépenses fiscales. loole mooy wàññiteeku dépense fiscale yi ay entreprise yu bëri nekk ci biir réew mi wala sax ca biti réew ñoom dañu leen di dindil ay impôts yu bëri te loole day wàññi bu baax recettes yi ba pare indi li ñuy duppee déficit budgétaire. Cela quand même ne facilite pas la réduction du déficit budgétaire. économiste bi ne itam ñu def li ñuy dippee dématérialisation maanaam liggéey ba ca douane ñu daal di koy digitaliser ndax loolee dafay tax ñu mën a dindi yenn dépenses yu ci mel ni que imprimer ay documents. Au sein de l'UEMOA, nous avons noté que le taux de recouvrement d'impôts n'est pas si élevé. taux de recouvrement impôt yi ci biir UEMOA kawewul te itam mën nañu sukkandiku ci yenn buntuwaay yi ngir mën ko dématérialiser. à notre économie Euh, d'avoir peut-être euh, une fiscalité assez assez élevée. déficit budgétaire bu Sénégal nag dafa am solo ba tey toll ci 5,5 pour cent mu ne de mën nañu wax ne wàññeeku na ci atub 2023 bu ñu ko méngalee ak atub 2022 mi nga xam ne tolloon na ci 6 virgule 1 pour cent déficit public yooyu nag li ko waral bokk na ci mbas mi njag yu cher yi nga xam ne nemmeeku nañu ko ci àdduna wërngal këpp te dara waralu ko lu dul fitna gi nga xam ne mu ngi dox diggante Russie ak Ukraine